Wah man nangul na len maintenant comme fan point fi lay yem fii fii. ana ko wa waaw photo bi mi ngi nii. comme fan point fi lay yem. wa maintenant ñom ñu jël profil bi indi ko ba fi lu ci dess ñu xam ne ni loolu lu ñu yàlla baaxee ñu tax suñu wërsëg. dama ne xatal bi du jaar tay du jaar tay du jaar ëlëk ma ngi gërëm nak di sante bu baaxa baax suma doomu ndey di gi mari Sagna parce que mom fépp ngeen xam ne ne askanu Sénégal dañ ko fay soxla daf fay taxaw di wane seen bopp di di wane boppam li ci des tamit dama bëgg askanu Sénégal xam du ba euh, lenn lépp lu ngeen di gis ci ay kër ay kër yu bakke ne amul kenn ku fi jënd ak suufa kenn ñoom ñëpp ci nekk danga ngaa doon ministre wala ngaa daan lii wala nga nekk xaritu ministre wala nga nekk xaritu président wala jàpp président ñu dagg suuf tax la maa ngi direct. lii ñoo ko bokk te fii woote woon nañ fi aar la ñu bokk tefes bi ñoo ko bokk kenn moomul tefes bi donc foog que nous, manko Don Ben, ñoo wane seen nakar. parce que lui, du sommes gouverneur du préfet kuy dem 5 milliards ne Macky Sall c'est à lui de sonner la fin de la récréation parce que cela se fait

terrain vide, ils sont bokk mais man maintenant, clôture ils ont fait un permis de construire toute la clôture et ils disent ils disent que les 5000 mètres carrés les 4000 mètres carrés maintenant, en fin de Fann et les 1000 mètres carrés ça ce pas du vol c'est quoi c'est le pain Non, c'est du vol. C'est du vol à ciel ouvert avec la complicité de plus haute autorités administratives. Allez savoir à qui appartient ces maisons. Tiens, comment deux deux mille francs facture la maanaam monsieur le maire nga ne la ñaari kër yi maanaam ki ko moom benn nit ki ko moom. Ah, dam leen ngeen gëstu moom kër yi. dam leen ngeen gëstu kana kër yi. ñaari kër yi way ñaari kër yi taxaloo yi. kër yi. xam nga nag ponkal dama ne ponkal ponkal laa mooy dem ba moom kër ba jël lu mat kër def ko parti Voici les fonctionnaires du Sénégal. voici les fonctionnaires du Sénégal da ngay dem ba tabax keur keur di doyul nga jël lu tollu ni keur nga def ko parti parce que da nga tok nous nga xam dañ la fa dénk signature askan Sénégal da ngay jël diko ces fonctionnaires d'eux, ils se connaissent qu'ils soient fonctionnaires de la direction générale des impôts et domaines qu'ils soient autorités déconcentrées qu'ils soient membres du gouvernement ils se connaissent tous. Est-ce que vous pensez qu'une personne normale au Sénégal peut construire une maison, pied dans l'eau, sur des milliers de mètres carrés, et se permettre d'avoir autant de milliers de mètres carrés en, en, en, parking et en sans savoir dès que c'est je vous dis un franc. di gërëm suñu mbokk suñu xarit Barthélémy Diaz. damay xala damay xamal mbooloo yiy déglu ne ñun waa FRAPP ñoo sàkku ci Barthélémy Diaz ab ndaje ñun ñoo woo Barthélémy Diaz ne ko dégg nañ coow li nga xam ne moo commune Sacré-Cœur Mermoz ak ville de Dakar ci wàllu suuf ñu ne ko nag bëgg nañ dajeek yow pour xam li xew ndaxte mbir balaa nga ciy wax foog nga xam bu baax li am ah Barthélémy Dias bokk ci maire yi nga xam ne maireu askan wi la non maireu famille Sall wala maireu APR mais je vous reçois tey à 15 heures dans mon bureau ñu toog ba démb démb mu ne ma déedéet day yomb sax je vous reçois sur le site ndaxte bu ma toogee ci bureau bi expliquer leen du comprendre dara donc trois heures bu jotee nañu joxante rendez-vous ci géej gi ci corniche bi indi suñu tànk ñun waa FRAPP fii pour rencontrer Barthélémy Diaz mu expliquer ñu xam naa ne ndaje bi dina am prolongation ñu weccoo ay këyit gën a set setantal mbir yi waaye li ñu mën wax mooy combat bi Barthélémy Dias di wax bu yóbboo ñu xam ne commencé na bu yóbboo ñu jàpp ne bés ni ki tey combat bi commencé na combat bi nag du combat Barthélémy Dias du combat ville de Dakar du combat waa du combat Guy Marius Sagna combat askan wi yëpp la ndaxte lii xew fii ci corniche bi moo xew fële ca Ndiaga moo xew fële sa Sindia ak Pignambour moo xew fële ca Gerew moo xew ca Tivaouane Pël moo xew ca Cap ci wàllu caxat-caxatee suuf si lii domaine public naturel la domaine public naturel nag yoon dafa am lum ci wax yoon dafa wax c'est inaliénable c'est imprescriptible donte après boo demee ci article 19 yoon day wax ne mën nañ ko déclasser aha baatu déclassé Moi, moo indi la responsabilité pleine et entière du président Macky Sall dégg ngeen ñu fan yi passé ñuy wax yolom signature ñuy wax woyof signature Li c'est la preuve patente de qui moi woyof signature président Macky Sall moi yolom signature ndaxte membre rek am sañ-sañ déclassifier déclasser domaine public naturel

le président Macky Sall sax ci bopam mo waxone ne tax ñu xamal président Macky Sall sa signature là santul Sall c'est seize millions de citoyens sénégalais qui lui ont donné ces signatures manam sonne en chair et en os de chair et de sang donc ñu nangu muy privatiser comme ça li nga xamné ne ñun ñëpp ko bok duñ ko seetaan tay duñ ko seetaan ëlëk bés ni ki tey nag combat bi dina commencer motax ñi ñuy jël suñu baat nous prenons nos voix Bon l'écho ak les voix du maire Barthélémy Diaz Bon l'écho avec les voix du député Cheikh Omar Sy Bon avec les voix de tous ceux qui se battent contre l'accaparement du foncier muy ci géej nous ci biir nañu def jonction nañuy bolé suñu doole dama ne pesum karam borom moo Fadjal la ce couvre-feu là cet état d'urgence là bi nga xam ne dara desutu ci interdiction de manifester ne va pas nous empêcher de manifester. Parce que soit on confine tout, on confine les citoyens, mais on confine également l'accaparement des terres. Nous avons un confinement. Vous faites qu'au moment où ils nous disent interdiction de manifester, ils agressent le peuple sénégalais, ils agressent le littoral, ils agressent le foncier, loolu duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg moo tax ñu am sañ-sañ wax ne ñoo lank ñoo bañ. duñ ko nangu jërë ngeen benn koppar jënd benn benn mètre carré amul. su leen neexee ñu wàcce ba ci suuf ngeen xool yenn kër yi. ay di ngeen xam ne ni kër yooyu ak kër yu nekk Miami benn la te kër yooyu su ngeen ko gestoo di ngeen xam ni kanamu kër yi moo tane parce que bàyyi espace di jàll. wax nga dëgg sax ñaam yi tane ñaam yi am amoo ci kaw plage kenn dama ci dama ñëw baara dañ ko gisee ñu ñu ñëw fa ñu mbër mo kenn kër yi bakane ngeen di ko kër yëpp la wax yëpp amul kenn ku fi jënd kër suuf amul kenn ku jënd suuf dañ leen may suuf li ñu woy attribution

kon fan la doole boobu lan la ko amee ba ñu war ko mu permettre moom mu mobiliser policiers yëpp ñu mën a aar lii. ça veut dire qu'ils sont ils sont conscients qu'ils sont euh, en train de commettre un meurtre sur le littoral. parce que George Floyd ni ko tegee kudd ci baat bi. Mhm. noonu la ñuy tegee kudd suñu baat bi ci littoral bi pour rey ñu jour après jour. littoral ba bañ koy tabax ba léegi ñu ngi gën a yokk ci feebar. ñu ngi gën a yokk ci cancer. étudiants yi dañu war a génn nanguwaat kër yi parce que espace ba espace université c'était pour les étudiants ñuy dem di bàyyi ay école loisir Radisson euh, gis nañu gis nañu gis nañu feeru bi lu mu fa def mais il faut arrêter quand même le président de la république c'est lui qui signe il n'a qu'à arrêter de signer parce que moom moo taxawoon ne kii 2017 la ko fi amee mais Djibril Diallo lan la gënee policier ba ne toog fële mu am fi fii périmètre lu tax ñoom duñ leen ko jox ku nekk cent cinquante cent cinquante daf leen gën a liggéey daf leen gën a def sacrifice daf leen gën a bokk ci réew mi daf leen gën a gën judd lu tax ñoom policier jox ñu leen ko ñoom ñu ñoo ko kenn koo xam ne kenn xamul lan la Sénégal mu war a jël littoral war a interdire léegi ñun ñuy wàcc ci bi il est ñun li ñuy et je me joins et je me réjouis avec Guy avec euh, le maire qui a toujours euh, porté ces combats là on va s'attaquer à ça on va inviter le peuple sénégalais Ni de Grand Dakar ni de Mermoz ni dëkk Amitié ñi dëkk dans les environnements dans les environs ñu ci parce que bu ñu ci lenn du fi des ni fi dëkk ñan la ay ay ay ministre ay magistrat ay juge c'est seul ce ce mafia bu ñu organiser ñuy suuf parce que bu leen la bu leen depuis yi bañ koy wax ñu dem porter plainte contre bu depuis bañ koy wax bu ñu titre foncier ñu génn ci médias yi mais ñàkk weddi boobu nag xam nañu ne li def ni tort la te dara gënul ñaaw nga suba ñu leen cim na nga pour pour romb ci littoral bi di nga reub ñu fi dëkk parce que xam na ne ñi fi ñu dëkk momu ñu momu ñu ko momu ñu ko on va porter plainte contre l'État du Sénégal et on est en train de préparer les documents et on va porter plainte contre la direction des impôts et domaines parce que yi ñuy def nii c'est dans l'illégalité li li Djibril Diallo sous-préfet wax démb amul fenn fu ko teg amul on a jamais vu un sous-préfet qui sort pour défendre un citoyen seulement et amener la police musul am musul am alors que les les Sénégalais te disent que ça c'est du vol ñëpp xam que c'est du vol ngay bëgg certifier ni du vol alors que la loi est claire sur le domaine public maritime que beaucoup ko justifier ça c'est inadmissible il faut qu'on arrête à un moment dans ce pays te xam ne suba yalla amna dañ dañuy Sénégal yi se suñu amé jomté te am nañ jom ah suñu amé fula te am nañ fula suñu amé fayda te am nañ fayda bu ci dess nak ma ngi biraat wax ci dama né pesum kanam borom a fajal waaw ñun Macky Sall buñ koy fal dañ ko fal ngir yaakaar faruñu ko pour mu jël suñu alal di ko tongtonge. merci merci kon gars yi a ko